alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mahamadul Fadil yi taxawaay bi mat na sëkk fa tabarakallah ci dolli ay kàddu sax xam naa liggéey bi la bokk waaye dégg njàngum xutba bi rek doy na lu ñu cee doole nag moo di rek mu góorgóorlu góorgóorlu suñu kem kàttan ci wéetal yàlla suñu borom ci lépp man ca la ca dolliku mooy dooloo sëriñ bi suñu digganteeg moom sëkk kon loolu mooy la ca dolliku mooy nu gën a xam nag rek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 sax sax ca dàkk te yàlla rek tax nga di ko def loolu kon noonu loolu rek fi nekk góor góorgóorlu suñu diine fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe suñu kem kàttan di sant nag gannaaw bu ñu suñu borom nu booleeg sëriñ bi sant bi mi nu fàggul suñu lépp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon naa ba nu santee suñu borom mi nu boole sëriñ bi noo ngi sant sëriñ bi ci wàllu yëpp ci lépp bi rek bi ci teegal lëg daja dolli ko nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam na ni yitti ji yitti ji jenn rek la muy ni ñu taxawoo suñu diine rafetale ko suñu taalibe xam na na ci lool rek lañ nekk nañ góorgóorlu bu baax ma ngi sant ñëpp ci rawatina jamono yi weesu ndax xew yi am na ci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 Eh, suñu borom dana nu gàttandu ci loolu ba gën a woyof ci ñun nu gën koo man gën coo gën caa wéral suñu pëstéef gën caa rafetu suñu yéene gën caa rafetu suñuy jëf suñu kem kàttan loolu rek moo nu fi bàyyi alhamdulilahi rabil alamina noo ngi sant ñëpp eh, nan góorgóorlu ci loolu rek bu nu góorgóorlu ci loolu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 gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk sunu kem kàttan te yàlla rek tax ñu ko def ak njukkaliku sëriñ Tuubaa eh, muy leen koy liggéeyale jërë ngeen jëf